te ne fii ci réew waxtaan la parce que léeg di nga nekk frontière u Gambie mm-hmm. nekk biir Gambie di nga nekk Farafeñe sa jabar nekk Karang nga dem reeree fa fonde <laughs> il faut qu'on tienne compte de ces

mais li li ak aada xam est-ce qu'on doit le perdre au au au profit de way de la modernisation au nom de est-ce que la modernisation doit perdre loo certaines réalités socioculturelles culturelles ko ci wara a sale di ko fi le problème n'existe pas Babacar Ngom dafa une dafa am obligation wu waxtaan ak population est-ce que suma mbokk séeréer yi dañu wara continuer di bayee ileer ay ileer ak daba ak daba di goree jaasi di bay 3 mois ba trois mois alors que mën nañ bay tout la l'année après bay 3 mois ñëw dakaar di jaay ndiir mais oui parce que da ngay ñëw Dakar jaay ndiir ngay jaay man démb jënd naa ndiir parce que dégg naa dafa baax ci góor

ndiir bi naa la wax ndiir bu baax bi fan <laughs> bu wow bi wala bu tooy bi wax ko ko léegi. bu la neexee bu tooy bi wala bu wow bi. xooj ko bu la <laughs> neexee alors Malal da nga fi posé question bu am important.